jiili. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan di wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne. tey nag fëgala ma nga fee ca États-Unis armee ma nga benn baraak jiilee ngi fii ci Parcelles Assainies ñu leen di defal émission boo xamante ni macha allah fépp fu waay nekk xam ni wasaare làmb créé na créé nañ leneen lu bees. loo xamante ne ay xale ñoo koy def tey nañ ñu bëggoon waxtaan ak mbër yi nga xamante ni ku ci mel ni fëgg la moment bii mu ngi doon waajal combat am digganteem ak armée bu benn barak waaye gis nga ak feebar bii di coronavirus bi Covid 19 waral ak ci euh, problème yu baree baree bare am ci ba ñuy ba ñu tere lépp loo xamante ne xeetu rassemblement la. fëgg la yaa ngi États-Unis mais maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan ci wasaare làmb su ko defee ñu gën a waxtaan mërëdë bi. yaa jili bëggee naa la bi ñu ngi lay ziar. di la mm-hmm. bu baax a baax di la bu wér a wér. di bëggee ñi ngay àndal ñëpp ci wasaare làmb képp ku nekk ci liggéey bi rek ñu ngi leen di bëggee bu baax Baye Fall yëpp daal. Mm-hmm. di sant fi ma nekk nii di sant waa Jé City sama gaay yi ma nekkal ñëpp di leen bëggee bu wér bëggee suñu yaay yaa sagar sama yaay ji xam nga père Bijel père Babacar ñëpp ñu ngi leen di bëggee ah. Mhm. père xam nga per Babacar ñëpp daal bàyyiwuñ kenn per Issa xam nga père Ndaw ñu ngi bëggee ñëpp Baba Fall suma copain sama gaay yi ñoom DJ Elimane gaay yëpp daal ñu ngi leen di bëggee gaay waaw di mhm. di ci occasion bi di baalu ak képp kuy bëggee fëga la xam nga nekk ci waawoon Lamsaar xam nga di ma fiyaa mën yokku cere dolli ñeex yoonu mën a rëdd mm-hmm. di xam nga dëngee nuyu ama neex mention mm-hmm. spéciale suma copain di bëggee ñëpp daal képp di mm-hmm. bëggee fële ñu lay bëggee di nuyu sama yaay bu baax di ko ñaanal jàmm xam nga di ñaanal suma papa fi mu tëdd ci Touba gënal ko ñu ci weer wu sell wi di bëggee ñëpp daal xam nga gën a xam bëggee Baye Fall yëpp di santati Serigne Saliou bu wér di sant ma wér di sant Serigne Ahmad ñëpp daal dëgg la Fekena tey yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi foofu euh, jàngoro bi nu ngeen ko dundee coronavirus bi. waaw mais instant yi comme ni ko dëkk yi di dundee rek moytu toog ci kàlla yi. Mm-hmm. farata mooy tax nga génn dem doxi ko pare ñëwaat. Mm-hmm. ñu tëj affaire yëpp noonu la demee quoi. Mm-hmm. noonu la demee moytu daal moytu xam nga sol sa masque booy génn sol sa gant. moytu daal fagaru comme ñëpp comme feebar la boo xamante ne ni muy wàllee dafa gaaw ba pare doo comprendre. da ngay jël say matuwaay daal comme ñëpp daal ñu ngi def toog ci gaale yi gérer suñu bopp daal xam nga mm-hmm. eh. noonu la demee daal. fëgala. yaa jiile. ma ni sa diggante ak bu benn baraak ku ne xamoon na ni taxaw na ban date ngeen waroon bëree yéen ñaar. waaw promoteur bi de le 31 mai la waxoon ah. Mm-hmm. te xam naa ne fi mu ne nii mënatul nekk moo tax fi mu ne nii moom nekkatuñ ci combat boobu quoi ñu ngi jàpp suñu ñaam nekk suñuy entraînement daal toog xaar ñaan yàlla affaire yi jóge fi daal parce que comme affaire yi moom instant yi affaire u làmb moom mënoo wax a ba yaakaar ne sax dina fi am parce que affaire yi. Mhm. Eh, mais le 31 mai daal la waxoon. Mhm. Eh, loolu la ñu waxoon le 31 mai 31 mai moom bu jaal xam nga rek da ngay jéem a nekk ci leneen daal pare ci lool parce que ñun moom chaque ku ñuy waxal dafa am nu ñuy waxee ak yow quoi dañuy wax ak yow tënk lépp parce que tamit moomuñu suñu bopp am na loo xamante ne ñoo ko moom loo xamante ne nit encadré ñoo ko moom. 30 mm-hmm. ans mai lañ waxoon 30 ans mai bu après dañuy toog jàpp suñu ñaambur xaar tamit waxtaan amaat daal. Mm-hmm. bi ngay dem États-Unis da ngaa demoon da pour préparer ji combat wala komba bi foofu la la fekk. waaw combat bi fi la ma fekk mais dama demoon pour préparer ji keneen beneen mbër laa préparer ji woon parce que avant loolu xamoon naa ne am combat parce que maa ngi doon ay promoteur xam nga hmm. mais ba ma demee ba kooku mujjee bañ saison bi lang te bu saison langee rek après mooy loolu quoi da nga xam ne année balance dugg si na hmm. ñu proposé ñu ko bon mu nekk booy boo xam ne def na ay preuve am ci làmb bon ñu ne hmm. xaaral ñu jël ko yee bañ a def année balance ñu jël ko ñu waxtaan ba juboo ci kàddu waxtaan ak Matar Ndiaye après ñu jël ko noonu la demee mais mm. mois biñ bëggoon bëri ko mois boobu yaakaar naa di mën na ñëw te combat bi du am parce que ku xam ni dugg nañ ci koor gi te buñ génnee koor gi première dimanche la xam nga bu jàllee moom buñ demaatee ay quinze jours vingt jours bu mënul am moom da ngay xam ne làmb ji mënatul am quoi peut-être yàlla bu ko dogalatee yeneen jëmmi jamono daal. Mm. Euh, fëgg la nga est-ce que entraînement bi nga bi leen war fi mu toll nii ak feebar bi yéen a ngi koy def. li taxoon nga dem états li taxoon ma dem moom wax dëgg yàlla arrêté naa ko dans ay un mois quinze jours arrêté naa ko parce que tey ni ngay bëggee dem salle di boksu yaa ngi dégg parce que dama inscrit salle boxu bi dama ko inscrit deux semaines rek après affaire bi am. Mm-hmm. xam nga ak affaire MMA bi nga doon entraîner fii salle yi day tëj. salle musculation mm-hmm. moo ci desoon ba cas bi commencé bari New York gaa yi tëj ko comme Jési moom dañuy teel a jël seen matuwaay xam gars yi ko benn hmm. séance la ñuy def pour téye suñu forme rek benn séance la ñuy def hmm. te benn séance sax léeg nga bàyyi ko parce que da lay jox volume boo xamante ne nii bugguma ko quoi moo tax léeg nga bàyyi ko tey nga cof suba doo cof ginnaaw suba nga dawi rek noonu ngay def maintien rek bañ sa koofur dem ak relax daal noonu hmm. ngay def et eh, armée bu benn baraak maa ngi lay nuyu euh, sëñ ba na la léegi gis sa sa adversaire xaw ma sa mbokk taalibe tey fëjala tudd xam ne mu ngi wasa aka dégguma la de armée dégguma la de dégguma la armée dégguma la ay jiri waaw maa ngi lay dégg bu baax waaw. Armé téye téléphone bi bu baax. preuve quoi am nga preuve comme que dama ciy jàpp te bëgguma kenn mer preuve dafa yor sama nekk di def émission quoi. jiri waaw. juróomi bi du ci ci fële la. fëgala waaw tëj na micro ci fëgala ayca hmm. léegi kon léegi naaj waaw maa lay nuyu waaw ma ne ba ziyaare hmm. di nuyu waa axlu ci occasion bi di baalu àq ñëpp ñëpp ñëpp comme hmm. mën a am maa ngi kon baalu ñëpp ak yu ma yëg yëgul hmm. di sant yàlla bu baax ci yonentam bu tedd bi ñaanal sama yaay suufu tuba euh, hmm. hmm. vraiment kontaan trop ci invitation bi ndax li mm-hmm. innovation la innovation la mën naa ni armé xaaral fëgga la sa micro bi bruit bi day génn armé waxal bu baax yi dégguma baax li ngay di profité ci occasion bi waaw di nuyu suma mm. di ko ñaanal jàmm moom ak bépp Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm dellu si ci réew mi. Mm-hmm. ci barke Seydina Mohamed. di di di di di am contentement trop trop vraiment ci invitation bi. oui. Mm-hmm. di wax mbokk internet yi seetaan wax lamb sànq laa ko wax bëgg la tamit suma frère la moom sànq laa ko wax yéen ñaar ñëpp seen disponibilité ñu leen daa jëfal bu baax a baax a baax gannaaw lamb moo leen boole waaye weer dañoo nekk ci weer boo xam weeru baax ok tumoro bëgg la mhm. dañu nekk weer boo xamante ni weeru baala tàq la bàyyi sa ruube gi xam laa la ruube rek nga weer boo xamante ni weeru njëggal la weeru baalan te àq la. ñuy hmm. ñaan yàlla suñu borom boole ñu jéggal feebar bii di Covid 19 bi di coronavirus. yàlla na ko hmm. fi yàlla jëlee jëlee ko fi euh, ba képp koo xamante ne dal na la suñu borom saafara ko. Euh, hmm. bi ci barki Seydina Mohamed Feugeula bi nga yëgee ni feebar bi ñëw na. ñu arrêté bépp activité boo xamante ne day am rassemblement nan nga ko dundee. xam naa sa combat nga njëkk a non li ma njëkk a xalaat nag li ma njëkk a xalaat mooy sama boy yi nga xam ne chaque jour ñu ngi sama buntu kër te dajaloo loolu laa njëkk a xalaat. Mm-hmm. parce que ku ci rek boo xëyee ñi dóoriwul dañuy toog ñi jàngi bu ñu wàccee dañuy foo jaar ñu dajaloo loolu laa njëkk a xalaat moom. lu tax ñuy dajaloo sa buntu kër. lan moo waral loolu samay frère lañ samay rakk lañ samay frère lañ xamuñu ko dul man looloo tax. xam nga mm-hmm. mafia boobu looloo tax quoi samay rakk lañ xam nga ñoo am na ñoo xamante ne sax. bon seen laaxu ngénte lekk naa ko moo tax xamuñu ko dul man loolu laa njëkk a xalaat booy ci feebar bi loolu laa njëkk a wax dëgg yàlla balaa maa mm. xalaat sama waa gàlle sax ñoom laa njëkk a xalaat e moom laa après du ma am jàmm sax guddi dinaa leen woo lijjanti leen buñ dajaloowul mooy loolu sax guddi noonu laay def ba affaire yi amee ba tey ñoom laa njëkk a xalaat sama booy wax dëgg yàlla après nag ba ma doog a xalaat bon li ñu fi indi woon ñu def ci ay ñu pare indi xaalis xam nga commencé woon fay saal un xam nga yooyu yëpp da ciy joué mais après mhm. da ngay xam ni ngëneel la quoi suñu borom li gën rek lay def xam nga yàlla dogal na yàlla dogal na musuñu def année balance suñu live xam nga kon mhm. ñiy def année balance gënuñu leen dëgg la kon suñu borom bu defee ni waroon nañ bëre ndog ndog ñëw dañ koy sant yàlla dëgg la toog nekk ci leneen parce que ñun moom wax dëgg yàlla dimbali nañu ba dañ doon nekk ci liggéey bu ñuy dugg ci mhm. làmb ñu ngi suñu métier bañ demee ba mënatuñ ko booleeg métier bi ñu ngeek suñuy business suñuy defaale waaw parce que nit moom bu sa ginnaaw yaatoo waroo yem ci benn job quoi. Mhm. te yàlla dogal na ay xale lañ mais suñu ginnaaw dafa yaatu te suñu papa teel ñu jox responsable teel a génn àdduna. xam nga mhm. loolu teel ñu teel a tàmm loolu kon amuñu droit toog wala di basé wu ci làmb rek. Mhm. a bañ xamee ne affaire bi mën na yàqu dañoo nekk di coof di entraîner coof benn séance. nekk suñuy business parce que Sénégal ñu ngi su suñuy business yoo xamante ne bàyyi nañ fa ñu ñu ko mën a gérer. ñu hmm. déggante ñoom nekk suñu business mu ñu génneel dara ñu jàpp suñu ñaambur toog bu affaire yi ubbee ñu entraîné hmm. préparé ñibbisi eh, parce que temps bi ñu fi waroon hmm. def jeex na pour le moment le vingt huit bi passé la ñu waroon ñibbisi quoi waaw bu passé nag dinañ entraîné waa tuuti dugg ci saal liggéey li ñu war a yóbbu Sénégal indi ko daal bu làmb amee baax na bu amul tamit ñu garder suñu forme xam ne li ñu yóbbu woon am nañ ko daal Adama yow sànq ma yaa ngi may xamal bi ma la ma lay woo sànq Eh, yaa ngi may xamal ni dama jóge entraînement nii maa ngi noonu doo waaj a sangu ban heure ngay dem entraînement ak ban heure ngay ñëw ak ñaata séance ngay entraîner par jour. non pour le moment moom benn rek xam nga ak koor gi nii. Mhm. dogo ba xaw a def benn waaw rek mhm. Mhm. ma bàyyi la nga nuyonteeg ñaar ngeen nuyonte béggante eh, eh, xam naa ne dégg naa mbër du woor buy fëgg la muy arme dégg mbër moom du woor moom dégg naa wër mbër moom kafewul woor ma bàyyi leen ngeen siyarante ngeen ñaari bàyyi faal yi waaw fëgg la maa ngi lay nuyu yee ziar nañ la mbër mi jaajëf ñu ngi lay ziar baax yee ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant yàlla bu wér a wér ngi ci jaam bu baax a naka foofu yéen a ngi ci jaam ñu ngi si jàmm alhamdulilah. noonu la yàlla na jëm kanam ñu ngi sant bu baax a baax. amiin amiin yaa rabbal alamin. ma kon noonu la yàlla na kanam. amiin amiin yaa rabbal alamin. jaajëfate. waa fëgg la. Armé loo wax. wax ah mais fëgg la dégg naa mbër du woor de. Armé yow ah. yaay woor sa état bi nga yor di ko nëbbu sa sa jàllaabe yaay woor. baax a baax a baax a baax. fëgg la bàyyi sa blouson bi nga sol di jéem a nëbbutu est-ce que yow yaay woor man damaa jeex man boo ma xoolee rek xam ne damaa jeex damaa jeex man koor rek laa ragal damay woor nag mais koor rek laa ragal bu ma wooree ñaari fan rek day commencé feeñ. mais man damay woor man sa maam bi moo ma yarta daf ma daan woorloo di ma di ma neexal su ma wooree ba ngoon jot mu jox ma deux cent deux cent jamono jooju bari na mënoo ko lekk ci ndogu mhm. su ma ñëwee moom laay dénkaat weccet bi suba mu tegaat yeneen deux cent moo tax damaa teel a taamu koor du ma ko café sax ñu dëkk ak man mhm. xam nañ waaw woor moom du ko café sax du ma du ma leb du ma fay bor nag te du ma yónnee gunge ma gungee du ma mhm. gungee du ma leb du ma def dara mais trente yi moom suñuy laam-laamee sax ma woor benn bi des moom ah mais yaa ah. oustaz arme tey yow yaay sama oustaz loo wax ci loolu li fëgg la wax <laughs> ah waaw loolu de am na solo leera du gunge du du lépp waaye du fay bor waaw gunge moom du farata lépp moom fay fay da caa baax boo lebee hmm. moom fay day daal comme nag du lépp moom am na ci beneen droit yàlla na hmm. ko koy mën di matale ndax ponk la ci ponk lislaam yi la bokk. ya la. ndax yaa yaa dal yaa ayyuhal lazina kama kutiba alal lazina mhm. kon koor boo déggee du kas ñeneen ñun ci jiitu woon daanañ woor. dëgg la. li suñ borom moom jëfe rek amul leneen. Mhm. Mhm. xaala xaala keneen. nga xool bu la neexee jëfee bula neexee bàyyi. Mhm. ay koor dafa bokk ci lislaam te booy xool moo ñetteelu ponk bi. Mhm. ci lislaam lu ama am. dëgg la. yàlla nañ may ñu koy mën di def. Mhm. te lépp luñ ci waaw yàlla jégal ñu aussi comme bàkkaar yi bëri xam nga. am mhm. nañu rek. Mhm. mais Armé euh, ku ne xam na ni yaa ngi doon préparé sa combat yaak fëgg la bi nga yëgee ni feebar bi am na ba arrêté nañ bépp loo xamante ni rassemblement la et puis promoteur bi déggante nga ak moom wala déggante woo leen. non vraiment ñu ngi doon déggante mais avant la. Mhm. ñu ngi ñu ngi gisante lépp waxuñu si waxu combat bi vraiment. Mhm. waaye yàlla dogal na ni loolu lii dafa mus nekk suñu habitude. Mhm. billaahi ma xamal ñaar ñi may àndal xam nañ li may wax. ñun xamuñu korité saison bu tëj ak bu tijji xàmmewuñ loolu chaque instant day mel suba lañ war a bëre. loolu. ba nekkatu nekk ci leneen. Mm. ñu ci leneen. mais mm. pour l'instant nii làmb kese lañ jox suñ mm. amuñu def dul làmb. bi couvre boog ngay génn xam kon kooku am na lum la jaral te ñu nag suñ coobare bopp ñuy sant ñi ñu jiite fii xam nañ situation yi ni mu demee. autoriser ñu may. ñuy mën di dem di def ful di entraîner yi kon ñu bu baax ñu ñuy jiite. Hmm. xam nga ay ndaw lañ yaakaaruñu ci lu dul hmm. rek ñu rek ñu ngi perte. nekk ñu di nax sénégalais aussi. général gauche gàddu droite non jamais teguñu ci làmb. Hmm. dañoo jaral amuñu beneen métier man. personnellement aw ma beneen métier bu may def. Mm-hmm. bi ma ñëw dama ko tegee à côté. Mm-hmm. mais mais est-ce que armée est-ce que armée euh, lamb rek est-ce que est-ce la boo xamante ni lamb sport la te ci biir sport lu ne mën na gàllankoor nit ki est-ce que lamb kese métier la. ba métier jotee dañ maa dugal ma dem jàngi métier am sama métier am sama diplôme. Mm-hmm. di liggéey ak menuiserie aluminium laa hmm. am sama métier mën ko aussi hmm. am na ñu bëri maanaam métier ba ñu ngi dem ak seen bopp mais déggoo li ma la dama ko teg à côté hmm. làmb laa si dama ko guddi jox ko bëccëg jox ko ngoon jox ko lépp laa jox làmb kon pour l'instant si loolu laa nekk. Hmm. Euh, armé lan moo la gën a neex ci fëgg la. soo may laaj dama gën a neex xanaa nappaate li muy def moom dafa mën a nappaate. maa <laughs> du ak ak xaw a kii la. <laughs> ay jay jay daaneel. ah barki Sëriñ Tuuba ndeysaan mais Armé fëgg la fëgg la nan lay nan bëree lan mooy forum ci làmb fëgg la ah man sax di di di di xool ay qualité mbër moom ndax wax dëgg yàlla ma amul woon foor wala awma lenn lu ma mën laay sóoraale qualité nit man samay foor daal moo ma gën a ñor. Hmm. waaw xam naa ne moom. moom la concerné mais man man samay foor. man hmm. loolu dama concerné. dëgg la. Euh, ban tànk la fëgg la droite. bàyyiwuma ci xel en tout cas man daal mën naa gauche mën naa droite. mais armée ma hmm. armée maa wax man li ma leer ba leer. laa la waatal bàyyiwuma xel ci li muy jiital illaahi mais bàyyiwoo ci xel mais mais xam nga pied bi muy jiital parce que pour man kuy bëree mbër di nga dem xam ni ban loxo parce que fëgg la lu waay gàtt xam-xam xam nga ni macha allah bëri na fekk ay ndaanaan door leen ñu daanu. te euh, te te macha allah mën na bëre jëli na fi mbër daan ko mbër song na ko mu daan ko dóor na fi mbër mu daanu te mbër mu mag la parce que bu ne bëri naag Ama Baldé bëri naag Garga Mbossé bëri naag yeneen naataangoo ci làmb mbër mu mag la tey tey am na loo xamante ni xëy na boo boo jëlut ko foo loo bëgg a ci làmb ba tax nga jël kii di fëgg la te fëgg la tamit moom jàpp na ni retard ci làmb wala tardé Euh, moo tax mu jël la am erreur yoo xamante ni defoon na ko ci làmb te bëgg na ko rectifier te bëgg na ko rectifier ci xale bu saf te ku ne xam na ne armée bu benn baraak dafa saf léegi da nga ma bëgg a wax ni kon fëgg la jëloo ci moom dara dara loo xamante ni mun nga xam ni bu combat bi jotee bu arbitre ne woon prip di nga xam ban position ngay taxawee xam lan mooy fooram xam lan mooy faiblesse am ba mun nga fa mun fa jaar am turu. ku nekk ñoo préparé sa combat man yàlla dogal na xam nga ma ñëw firi su ma dawee jaayu daw jaayu am ci làmb ji mm. su ma amee loolu rek ci des li neex supporter war a def am na li ci làmb mooy nga ñëw xalaat ne nit ki di la la Mhm. amoo papat sept quatre vingt nga fàttali am doo kii wala pooru kële est-ce que dégg fi may waxee dégg naa ko baax ne damaa mbapat damaa tëj mbapat comme ni ko gars yi di defee nii mais dafa toll ma jiyee bëgg am leneen lu ma prouver ci làmb dóor mbapat sax ma arrêté daf daf leen a man lijjantiwuma fooru nit man xam nga laa lijjanti sama foor li ma mën te làmb làmb juma ñëw lu fay neex man lu fay neexal. Armé ñeme ngaa jàkkaarloo fëgg la samp jaaga yéen ñaar ngeen koor à koor cinq minutes yoo xamante ne askan bi ku nekk day taxaw bég ba xam ne li ñu li ñu doon namm ci làmb ñu doon wax naan làmb fay na fëgg la ak Armé bu benn baraak yëkkatiwaat nañ fa làmboo làmb ci kaw. moom lay def bu ko neexee bu ko neexee tuul tànk yi xàcc dóor rek xam naa gënumaa diis loxo gënumaa entraîné <laughs> ey Feugeula dégg nga li armé wax moo la gën a ci ci fëgg la. Jili. lan moo la a neex ci armée. waa Jili man tey bëgguma wax ci kenn dama bëggoon waxtaan ak yow rek. <laughs> bilaay. waa mais mais oto lu mu fees nu nuyul ma sama yaay xaj la ci da. non euh, guerrier la champion la jaayante na ba li ma gën a neex ci moom xale la jaayante na ba bokk rek. mbir moom boo ci nekkee nekk ak say nawle. Mm-hmm. jaayante ba bañ lay tudd rek jàmbaar nga. loolu moom solo def nay preuve am jaayante. ba bokk mhm. loolu dafa am solo nekk ak say nawle jaayante ba bu ñëwee bu ñu tuddee ñaar tudd la loolu rek ndam la quoi mhm. loolu man mhm. damaa bëgg nit ku mel noonu quoi a nga tey tëbul tëb rek ñëw fii tëbul tëb rek di bëri fëgg la quoi dëgg la dëgg la noonu la demee quoi loolu nekk na loolu booy booy yëpp booy ci làmb bi yëpp booy ma gis nga def loolu daf may neex parce que man it noonu laa débuté ba may nekk booy dama nekk foo dama naa dama nekk foo xam ne dafa xat ma jaayante bañ tudd ma jaayante bañ tudd ma Mm-hmm. ñenn ñi naan non du mbër du nii te quatre-vingt-dix pour cent yi ko doon wax ma ci làmb ji mm-hmm. kon booy bu ma gis tamit nga nekk ci loolu dama xam ne jàmbaar nga dama lay nangul sax jàmbaar mm-hmm. waaw kon loolu moom nice mais mais mais est-ce que yow fëgg la ñeme ngaa samp jaaga euh, sank yaa xale bii di armée ngeen taxaw corps à corps jiri man man fi mu ne nii ñemewu ma dara <laughs> xam naa la bandi non fi mu ne nii ñeme dara doole jeeg doole jeeg bëri beeg lépp na jël rek. Uh-huh. ba yàlla de jàmm bañ jóge ci yëpp. Armé xam nga ni Feugeula da bëgg a nax teg la xel. non jili <laughs> man man duma dara dama màgget. ba pare aw ma doole aw ma aw ma doole aw ma non dara xam no mais dara jóge ci defet bu ñu warul am rek jóge ci defet bo xamante ne ñoo ko teg suñ bopp waruñu am xam nga ñu gis ni ni liñ daj ci ñun moo tax ñu jó ñu jóge foofu loolu kese la ba ñuy ñëw sax doon nañ doon nañ pare beneen combat boo xamante ne nii bu taxawoon ñëpp dinañ na fëgal tax mu jël loolu xam nga li ma la mais comme li ma la rek ni làmb demee ak léegi xam nga ñun ñu am foo xamante ne toolu nañ ko ci làmb xam nga promoteurs yi duñ toog weer buñ ñu connecté wul du suñu liggéey loolu ndimbalu suñu borom la ñun mënuñu ci làmb ji ñu ñu mën fuuf ñoo ne ci lamb ji